dafa doon loo xamante ne nii day dugg ci yaramu doomu aadama nekk ak moom su nekkee moom nag day sensé ay xalaatam maanaam xalaat yi mu waroon am da koy soppi ma jox la ci benn misaal comme tey bu fekkee góor la da gis góor goo xamante ne nii mbirum jigéen rek ki la ko war a di xiir nga xam ne am na ñoo dañuy masturbé wu mooy li olof di wax mballu dañuy mballu ba seen man yu génn ñu doog nekk ci jàmm nga ne bu ñu ko defee ba mu génn sax léegi dañuy julli jàpp jégguluwaat yàlla ne lii moom dootuma ko defati waaye suñ koy defaat duñ ko tey ndax bu rab bi duggee ci ñoom rek ñoom nekkatul ne ñoom ñooy def comme par exemple tey nit ki wér a dikk nga fekk ci mbalit mi muy lekk ay wettit kooku soo ko fajoon ba mu wér nga won ko wettit yooyu ne ko yaa doon lekk lii danaa déedéet du man fekk waaw fekk rab moo koy def maam moom doonul woon moom ci boppam mooy lekk wettit yi ndax wettit yow boo ko lekkee sa xel day nga wàccu waaye waaye rab bi mu moo dugg ci moom di ko lekk mooy tax rab dugg ci góor di ko foloo muy fole boppam imma sax mu jiñ ko ci muy dem di fooye ñeneen ñoo xam ne tokkul leen wala dëgganuñ ci moom imma sax mu dem ba téye awraam nga xam ne moom dootul nekk góor day dem ba am soxna li mu waroon a man du ko man fekk na dafa yàgg a fooye boppam naka noonu tamit lay duggee ci jigéen maam yenn saa yaram dugg jigéen euh, def ko bopp buy metti wala mu def ko règle boo xam ne du normal euh, noonu lay demee ba def ko loo xam ne comme saaru ngelaw yenn saa gis jigéen moom dañ naan moom daa mel daa ëmb mu dem yàgg biir bi wàccaat nga gis ko xam ne moom day ëmb dëggantaan waaye day ëmb ci diggante bi rab bi dikk yàq ko tuur ko am na ñoo xam loolu duñ ci jaar waaw tere ko am am ñoo xam ne dañ lay tere am jëkkër maanaam loolu sax duñ ci jaar duñ jot a ëmb ba mu yàqu duñ far am jëkkër ku ñëw wax ba nga yaakaar rek day delluwaat te doo xam lan moo koy delloo am na ñoo xam ne mën ngaa dem ba am jëkkër waaye rab bi moo ñëw fàdd ku góor ki moom nga gis jigéen ko am day tënj kenn tënj ñaar góor ñëpp di ko daw ne daa am gaaf fekk dafa am lu mu nekkal loo xam ne kooku jabar la ko jàppee comme jabar la ko jàppee nag ku ñëw bu ko xañ jabaram mu xeex ak yow bu la mënee rey la te lii xeex ak yow di la gis te yow gisoo ko loolu bu xeex yow dalee mën a gañe moo tax mbiru rab doon lu garaaw garaaw